di wax ni kontaan nañu trop ci ñëw fii Grand Dakar parce que ñun ak Grand Dakar c'est une longue histoire ndax ku dëkk HLM Ndema yàgg ngaa ñëw foosi fii Grand Dakar bëri na kër yoo xam ne fii bi ñu nekk xale dañ fi doon fréquenté amoon naa fi des amis d'enfance lu la Grand Dakar c'est une longue histoire parce que léegi coordinateur wax na ko jàpp naa ni ñu gën a sonn ci xeex bi Grand Dakar ci la bokk léegi rek maa ngi gis euh, suñu rakk bëre jàll de ko naa Abdourahmane mi nga xam ne defe bi ñuy rey Idrissa ci lañ ko dóor bal ci tànk ba léegi mu nekk ci jafe-jafe waaye nag ñun dañ dul ñoo xam ne dañuy won gannaaw koo xam ne dafa ànd ak ñun di xeex ba dara dal ko moo tax nit ñi jàpp nañ ci luñ ci mën ba tey tegal nañ ko prothèse mu mën a dox am tuuti autonomie di def ay soxlaam noonu ñu ko defee ci maam defar nañ ko ñu bëree bëri ñi nga xam ne ñii seen loxo la ñii seen tànk la parce que c'est ça l'esprit Pastef on est ensemble on se bat ensemble on tombe ensemble on se relève ensemble mais duñu seetaan kenn. le Grand Dakar c'est une longue histoire li ma fi taxaw rek war ma déjà ñetti turandoo yoo xam ne ñoom ñëpp ay Ousmane Sonko yi. kon li may njëkk a def mooy masawu leen. masawu leen rawatina yéen ndaw ñi ci li ngeen xam ne yéen koy daj ci xeex boo xam ne vous ne l'avez pas choisi on imposé benn apprenti dictateur boo xam ne tey jii fitam toogul te leer na ko ni dans dix mois su ñu demee élection présidentielle Ousmane Sonko nekkee candidat gannaaw yàlla kenn mënu koo tere nekk président mu ne nag mu ne nag loolu nga xam ne yàllaa ko tudd mais it muy loo xam ne liggéey bu méttee métti la ces huit dernières années ont été très difficiles pour ñun ñii du waa Grand Dakar gese du waa Ziguinchor kese du waa kese du waa kese du waa kese du waa kese mais mun naa ne Sénégal bi yëpp tout le Sénégal ñoo ànd di xeex xeex bi ba ñu egsi fii ba nga xam ne tey ñëpp am nañu yaakaar ni dans dix mois dinañu démarrer le véritable changement structurel que le Sénégal attend depuis 64 loolu nekk la Macky Sall ne du fi amee loolu moo tax yéen les jeunes conscients yéen di ngeen jeunesse boo xam ne dañuy ñëw di leen jox ay 2000 5000 vous êtes moo tax yéen yéen ne du ko nangu loolu rek moo andi xeex bi ñuy xeex fii nag fii ragal dëkku fi fii ragal dëkku fi jigéen ñi sax ragal ñu waxuma laa góor ñi

ñu leen gërëm ci seen taxawaay di leen wax ni Sénégal yëpp nag dañ naan Sonko dafa am fit man aw fit sama fit mooy yéen man aw ma fit lu ne ci man rek fii lañ ma ko defaree fii Ziguinchor kon ma wax leen ni li des ci xeex bi bëreetul gesticulation yi bëri na manipulation yi bëri na coow yi bëri na waaye bu mu leen détourner de l'essentiel fii xam ngeen moom nee na li muy def ay tournée économique la bu ko neexee mu génn dajale ay nit ñi ne tournée économique lay def ñun bu ñu génnee mu ne amuñu droit génn lii de def ci sama nemmeeku tuur yi mu yónni gendarmerie yónni police ñu may sànni ay grenade est-ce que fii fi sànni grenade fii sañ nañ ko kon bi soyez concentrés dem leen ci liste électorale yi rappel la kese mais au-delà de vous xam ngeen depuis presque un mois ak li tegu tey laay doog jël micro di wax te bëri na ñuy def live Sénégal yëpp ak ñuy seetaan su ma waxee message yéen taxu ma wax ndax xam naa ne yéen ñëpp bind ngeen ba pare. mais au-delà damay adresser message à tout Sénégal génn leen ngeen dem bind ji parce que c'est l'histoire qui en marche te kenn warul nangu histoire bàyyi ko gannaaw. kenn ku ne li changé réew mi war nga ne sama carte bokkoon na ci donc dem leen ngeen dund massivement ñaareel bi ñun jàmm la ñu bëgg moom la ñuy ñaan ci lañ yar moom la dox ku ñu may jàmm ñu may la jàmm waaye ku ñu bëgg xañ jàmm ñu xañ la jàmm kon ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp ci jàmm ndax jàmm moom rek. la yàlla santaane buñ ñu mayee jàmm ñu may ñëpp jàmm ñu bàyyi sénégalais yi ñu seet kan moo leen doy ñu tànn ko waaye buñ ñu mayul jàmm yaakaar ni ay quelques magistrats yoo xam ne il sont complètement couchés Diomaye dafa ne la clochardisation ma répété ko fii ba xam ku may jël la clochardisation de quelques magistrats su dee moom rek la Macky Sall yaakaar pour tere ñu nekk candidat dafay napp ndax bu ko defee moo xam fu mu jëm ak ay élection waaye du doon fii kon jàmm la ñu bëgg yàlla na yàlla def jàmm ci senegal jàmm ay nit a koy dox ay nit a koy seq buñ ñu wanee tànku jàmm ñu delloo leen jàmm buñ ñu wanee safaan bi on se kon bindu ci inscrit liste yi et restez vigilant la massification mais restez vigilant bu laajee combat ñu xeex bu ñu woowee ci jàmm ñu def jàmm lii mooy message bi nga xam ne bëggoon nañ ko délivrer fii comme nag dañuy door te dese nañu cinq quartiers yu ñu war a def mënuñoo gën a yàgg fii waaye nañ dolli fii ci yeneen condition man maa ñëwoon fii jël engagement ne place publique bi dinaa ko aménager mu yëgal ne place publique bi dinañ ko aménager dans les prochaines semaines incha allah.